trempé dans le café. Espèce de morceau de pain. Vous voyez, une espèce de morceau de pain. Il est dans toutes les sauces. L'autre business khalis est Yusuf Ndour. Moi, Yusuf Ndour gagne 10 millions. Je regarde, Yusuf Ndour gagne 10 millions. Je dis, il y a 110 millions. Yusuf Ndour, il y a 10 millions. Il y 110 millions. Le Sénégal est un peu de temps. Yusuf Ndour est là, il a CD, il y a Bandiba. tekkatu dil trian bi di ñu ne dañuy jaay CD bi. toog ci ay micro di ŋàppee ko dama leen yërëm sax bu kenn wut CD boobu nag nit yi war leen di Youssou Ndour ñun instant yi dañoo dañuy confiné wu ñun talluñu say CD. bu dee amoo bopp amoo xel nga créé yeneen ñun ñu say CD say CD ca mbalit ma takkatu dil bu bon nga say CD ca mbalit ma soxlawuñ ko. boo amul alal boo ñu jox boo jëndul ay kilo kilo ay ay tonu tonu ceeb yi ngay tasaare ndakaaru ay Médina ga nga juddoo ñun soxlawuñu say ay sede bu dee yow yërëmoo sénégalais yi fekk ab néew nga bugg ko sulli dompat ko yow Youssou Ndour ñun mook moom xamuñu say mbir dara laaju ñu ne nag 10 millions laaju ñu la say 10 millions laaj ñu xam lañu la fayal say taxe Youssou Ndour wuñ say 10 millions fayal say taxe ling fi yore ci ay entreprise bo fayé ces taxes mo ëpp 10 millions bëggu ñu sa seede sa seede sour nañ ko bëggu ñu ko amoo loñu mëna wax amoo loñu mëna wax lu xamul ci corona bi xamoo ci sax dara yow déjà xamoo ci tous loñu mëna wax ci corona amul téel say seede ci xaj yow awa di ci awa di seen seede yi ca xaj soxlawuñ ko ñun talu ñu leen di déglu xam nañ lepp c'est juste li lavez vos mains gardez vos distances restez chez vous kese confiné amul loo fi mun a wax lu bees ñu su caqat ak say seede nga war a dem jëli ay ay tonu tonu ceeb jóbbu ko Médina jox ko dëkk ba tasaare leen ko defoo ko nga yow tax dama ne luñ la sant yomb na soxluñ say 10 millions dama ne nga fay say taxe Youssou Ndour fayal say taxe Youssou Ndour fayal say taxe Youssou Ndour le délinquant financier fayal say taxe say 10 millions denc ko fayal say taxe say taxe c'est des centaines de millions yu nga war a joxe par année Oh, l'Afrique chante. Tout. Youssou Ndour bu la yónnee Malboro rouge lay dox bu la yónnee Malboro rouge jox la 1000 francs nga jëndi paquet Malboro indi boo tegee paquet Malboro bi ci loxoom du tax mu bànk loxo bi nii la koy def tànk weccatam teguwul ci loxoom bi ba mu ne ko nii compté ba mu mat ba mu ne ko surux ci poos bi Youssou Ndour du la bàyyi kooku mooy Youssou Ndour ñu dañ leen di wax nduur ki nga xam ni dul ci tele lañ koy gis di ko bardeeg yooyu kuñ xam kuñ comprendre kuñ jàng kuñ xam. waaye ki nga xam ni Abdoulaye abdu Diouf nga woy ko Abdoulaye Wade nga woy ko ànd ak moom Macky Sall tey nga woy ko suba nga demaat keneen donc kooku ko yow mi ko gëm ak topp ko ne moom référence la yow yaa baaxul. yow ya amul référence kon mun nga ko référencer parce que ñun ñi fekke yousou Ndour ci jamonoy Abdou Diouf Abdoulaye wad ci jamonoy Macky Sall Youssou Ndour jaaxaluñu du un exemple ci ñun te du ko musa don bu aduna don yuuxu naan exemple ci ñun du exemple parce que won na trahison ci kanamu peuple bi sa suné sa saa ko peuple bi soxla yousou Ndour trahir le peuple dem andak ak euh, ku nek ci pouvoiriste bi Abdou Diouf yousou Ndour était avec Abdou Diouf tagg na fi ay baaxu maamam moment bu senegal di jooy di yuuxu di xeex di di di dee ci hôpital yi Youssou Ndour moom mi ngi ànd ak Abdou Diouf ñu jóge ci loolu intérim bëgg daanu mu suux taxaw di xeex Abdou Diouf ñëw Abdoulaye Wade ñëw Youssou Ndour woy na Abdoulaye Wade woy na maamam yëpp Faara Wade Ndiak di Wade Ndiak Cheikh Wade Ndiak Oussa Wade Ndiak Moussa Wade Ndiak moo jur Abdoulaye Wade Ndiak moo donc woy na Abdoulaye Wade ca Ndiak ya Ndiak ya Ndiak ya dégg ngeen ko fii Abdoulaye Wade Ndiak la lu ji Ndiak Abdoulaye Wade Ndiak Youssou Ndour woy na fi Abdoulaye Wade ci bépp côté. Youssou Ndour bu mu demee ba nga xam ne ay intérêt mi ngi commencé di daanu Youssou nduur taxaw di xeex Abdoulaye Wade. ñëpp foog ni peuple bi lay àndal Youssou Ndour retourné waat dem àndal ak Macky Sall deuxième mandat bu ko Macky Sall di laaj ñëpp a taxaw Sénégal di xeex Youssou Ndour a taxaw jël micro di woy Abdoulaye Macky Sall di woy ay baaxu maamu Macky Sall Macky Sall di ko woy ànd ak moom ñëpp di seetaan mu koy woy doon fa vrai géwelu Macky Sall gis ngeen ko wala gisu leen ko nit di deewuñu nit yi ñàkkuñu seen xel yi seen xelu démb mooy seen xelu tey ay xelu éléphant lañ yor fàttewuñu dara Youssou Ndour dajale gone yi ñun dañoo doyal ci seen woyu woyu corona bi sonnal ngeen ñoog seen woyu coronavirus yi ku nekk jóg ak bopp ay euh, baatu mbott yi baatu sindax yi baatu melentaan yi ku ne oh corona corona seen corona sonnal ngeen ñoog corona ki lan ngeen xam luñ xamul ci corona lan ngeen comprendre luñ comprendre luñ ci corona vraiment yéen corona bi dañun ñun corona dañoo dal ba pare yéen seen baatu mbott yi sonnal ñu yéen tamit sen baatu mbott yi so ku jóg corona sonu nañ nag quoi ñaari feebar lañ am ñun ñaari feebar corona virus ak sen bat yi ku ci ay baatu nawetu mbott mbott nawet ngoox ngoox ngoox eh, ngoox ngoox ngooxi ngoox sonu nañ ñu fait chier avec vos voix de ngooxi ngoox de de mbonaatu nawet sénégalais yi impacté wu di xaar ciép di xaar diwlin di xaar fay courant di xaar fay ndox di xaar fay loyer di xaar fayu di ak corona bi nim fi mel ñepp tiit di wëri solution Youssou ndur mom genné mom ak collaboration ak awadi ñaari bandi salté yi ñu né dé lañu defar ay CD dañ koy jaay sénégalais yi yow Youssou ndur loolu nga xalaat defar CD di jaay sénégalais yow loolu moy sa xalaat quoi ak sénégalais niñ mel ni yow ñan ngay nara jaay CD bi man man dama man dama impacté wu yusu man mënu nga jël jiiji nga ko bugg a jaay dafa impacté wu njabotam dañu impacté wu koku bugg a jaay Fatima nga ko bëgg a jaay dafa impacté wu kan nga ko bëgg a jaay kan jëndal yow yaa teg 10 millions jëlaat defar na CD ñëwaat bëgg ñu ko jaayaat encore xanaa say 10 millions ngay jël te jël nga fee 100 millions te naa la woon lan moo tax mën a jël nga 100 millions mais léegi 10 millions ya nga joxe nga nga nga ñu bëgg a wulliwaat ñun ñun dimbale woo ñu léegi yow da ñu bëgg a wulli pour jël jël ko nga ne yow da ngay jaay CD c'est du jamais vu monde bi nekk yeneen dimension monde bi gars yi daw nañ dugg ci laboratoire yi gaw nañ dugg daw nañ gëstu ci affaire yi waaye Youssou Ndour moom corona voice ma ngay wër ne moom day léegi nag lañuy dese ci weccet bi nga xam ne moom la ñuy jéem a xool nuñ def Youssou Ndour ma ngay xool nan la ko jéem lekkee moom nan la ko mun a jéeme warax moom ak Dj Awadi léegi comme ñoom xamuñu ni am na yeneen solution yu dul dugg micro yor sa micro di way waay waay Sénégal moo tax Dieudonné da ko wax Dieudonné xam ngeen Dieudonné Dieudonné daf ne l'Afrique chante et danse dans tout l'Afrique chante et dance dans tout mu ne Afrique lu mu gis ci Afrique mooy lépp dañ koy fecc wooy ko lépp coronavirus dañ koy fecc wooy ko ñëpp corona corona corona corona comme ay mbott nag ay mbott nawet loolu nii lañ koy wéyaan corona corona kii nag ngooxi ngooxi ngoox ngoox noonu lañ ko jàppee ngoox yi ngoox ya monde bi nekk amul benn ci monde bi kenn koy woy corona Sénégal Coupe d'Afrique ñu woy coupe d'Afrique oui gaynde yi jël leen eh, eh, eh, moo tax gaynde yi jëluñ dara France nga xam ne jël nañuy coupe du monde ñaari coupe du monde benn bii bi nga xam ni buñ final lañ dem ñu doo koo woy mooy kii woy joueurs yi final li ngay doog a dégg ñun jëluñu dara mais dañuy commencé football rek ka nga gis El Hadj Diouf teg bal bi ci tànkam rek nga kii ko woykat yo commencé génn El Hadj Diouf boo ñu indi yaay yooyu wuy samanda yooyu El waa Fadiga waa waari Camara waa indi leen ñu ndam li c'est du n'importe quoi yéen lépp ngeen woy ko moo tax Dieu dana ne leen vous dansez vous vous et dansez de tout dëkk ngeen woy ko ngénte ngeen woy ko xawaare ngeen woy ko super ndaje ngeen woy ko anniversaire ngeen woy ko ku deele ngeen na way ko yéen way rek ngeen am yéen daal way rek yéen doo leen créé piqûre yéen doo leen créé vaccin yéen doo leen créé médic lépp ngeen way lépp ngeen way ko l'Afrique chante et dance de tout corona war nga fi jógee ndax yow dag ñu sonal yow corona noonu la fi jógee kon yéen da ngeen foog ni yéen moo fi jële corona waa yéen way corona moo fi jële corona corona dañuy sonal corona dangam nang ku ne jóg corona c'est que corona bi ne mais vous nous faites Virologie, yi spécialiste spécialistes les penseurs jóg yeen yéen ngi té micro ba corona corona corona yéeg na ñu xol ba xam sen vœux sen vœux yooyu seen phrase yoy mo fi jëlee corona mo xol États-Unis Canada ma sétane télé chaque jour dama leen di jàngal touti ñom di way ñu xamné amna leneen luddul dul way les publicité bu ma gis au Canada je leen di expliquer maa ngi ñëw ci sujet bi publicité non mais ils sont formidables Chut, man man après dans tek les les pensées quoi Bop africain ak bop un xol est-ce que cellules ñoo tolo ko est-ce que ñoo ëpp ñu ay cellules de réflexion quotient intellectuel parce que ça m'étonne quoi. Canada Canada publicité la artiste bu que da artiste la hein. artiste peintre humoriste mieux prenez chaque jour dina quatre fois chaque publicité publicité ci corona bi day quatre fois chaque euh, journal day am de publicité artiste. gis rek un artiste ñew sa sa mala nit dof ragal du eh, sama gars ragal du corona bi warul donc nu ñuy def moy fagorou fagorou mom moy euh, garder les distances lañ wax ku garder les distances you know euh, you know ak bu joxe sa bu joxe Yeah, kon ma fi jaaroon pisaw dem nañ en a fa di way de li mo am publicité Gardez les distances parce que parce que pour pour pour pour pour euh, Lavez fi di les mains waaw Je les mains restez chez vous gardez les distances te jeex Je ku mu Je so Master xam ngeen mo lavez vos mains garder les distances you know mi ngi sama ko noté won sax pour muy clair quoi Ni ni xam-xam la def quoi Ni ni ñoo yor xam-xam mais ñoo xamné way rek fecc rek wayo fecc rek alors euh, ça et là lavez les mains restez chez vous gardez vos distances sensibilisation bi lii la ñu def ko fond noir ku nekk sol ce t-shirt t-shirt t-shirt yu ñu bind sensibilisation ban mo gëna raw lolu li moy sensibilisation bu gaaw bu efficace ni tak-tak noir mu taxaw yeu sa sa man la peintre bi man la jiji wa menuisier bi lepp lañu indi nak menuisier bi xamé ngeen ma ye kon nak sama gaay gardez vos distances restez chez vous et lavez vos mains amout, out nii publicité bi ma xol publicité bi ak publicité wu Sénégal rek am gatché rek am gatché ñangay woy 100 kilo kilo minute ne woy artiste bu da peintre bi day taxaw humoriste bi rappeur bi day taxaw bi day taxaw xam-xam ku indi sa ça prend quelques secondes chaque journal buñ paré ñu lavez les mains gardez vos distances et restez chez vous

ab ku nekk bëgg a bind huit mesures di xëccoo ku ne di xëccoo maa la dàq ak maa la dàq way kii bu ñëwee corona laa corona aka ne corona nañ ko moytu laay laay la la benn woykatu mbalax benn titi ñëw laa ko ne da yégal fo waay ko ro naa wooy sama ndeyooy bul fi jël bul fi laal doomu aadama caa tët tët mais ñi ñoo sonn te pourtant xam-xam gaa ngi nii à côté ñu ne duñ ko laal bu titi waaye ba pare Viviane tam jël ne ah titi du ma gën a kii de ah da ko yëgal trèble la xaaral ma ñëw ma ne la dañu xëccoo <laughs> wóor tet tet tet tet non dañu am mu xel ko wax xel moo tax bu damay toog di xool monde bi monde bi à travers les images mu may noq di ma ñuus man chaque jour ma am gàcce dinaa dinañ ma ma monde bi dinañ ma noq rek dinañ ma ñu dinañ ma noq ba ratt samay day monde bi dinañ ma noq ba ratt samay day te lépp sénégalais yee ma ko teg lépp mais xel lu muy jëriñ sama gars yi li ma leen wax ci publicité bi loo leen ci wax ñoom ña ngay dajaloo nag ku ne di woy ku ne di xëccoo ñu ne yow dañuy génne seede dañ koy jaay <laughs> man dama leen di seetaan nii ah, ku ne nekk ci studio ji jëm jaa xam nga ku ne yor sa portable yee triste vrai corona la question à savoir si nekk rek ah dama toog rek wax léegi ndax xaram nga wi wi ñambaat waa buñ ko bisaabee lu muy joxe ah nañ ko ñambaat laay laay la laa ah fii neex na dama len seetaan ni ma ne ni ni ni ni ni ana sen bop yi mais ni ana sen bop yi ta ta damay tok ma lii des années lumière la rawé ana sen bop yi mi xana ñu dañoo këppati suñu bop yi tat yusu ndur nak jité len mu wara xalat un eh, penseur yusu ndur mo len dajalé ci ay studio ñay ku ne di la jaay la mal la gën bind corona ñu ne yoo dañ koy jaay il faut arrêter il faut arrêter sama gars yi li ñuy def nii c'est pour ngeen utiliser seen moyens yi tey ñu mën dox am sañ maam daf ko fàjtoon démb di dóori sox ancien combattant yi yi ci champs yi ci 44 yi buum buum bañ nootu plan yi laj joor bañ na ni ñaani ambiskat ak nooni ngi ngi ngi ñaani ba tey bàyyi wuñu ONG taxaw teg dil teg